bi may nekk député nekk guma sax ab conseil municipal wala leneen 98 bokk ci cinq plus jeunes député de cette législature les cinq plus jeunes députés ci laa bokkoon dellu si nekkaat député en 2007 nekkaat député 2012 nekkaat bi muy quatre législatures boo waree sénégalais yi def quatre législatures député du bari te mooy nag dama ko boole quatre législatures yëpp bu ci ne Sénégal daf ma tànn pour me représenter ko ci CEDEAO CEDEAO e 2020 laay jeexale parlement bi ci laay bàyyi dootuma briguer man nañ maa falaat mais du ma candidat bëgguma non non je ne serai pas candidat nag ñeneen ñu ma gën a nekk xale dem CEDEAO ndax dama sonn mënatuma di dem ay Abuja di dem wàcc suma njaboot loolu dama koy jàngal mag ñi nga xam ne bëgguñoo bàyyi pal xam man na maa bokkaat ci siis yi ñu falaat ma danaa fa am xaalis mais xaalis mën naa ko am te du ma génn Sénégal ba pare bàyyi gone yi gën a tuuti ñu dem donc man à partir de mars prochain euh, deux mille vingt damay génn parlement CEDEAO bi nga xam ne maa ko jiite nekk ci leneen loolu it annonce la boo xam ne yow yaa koy am euh, pour nga garde ko ndax dama ko war a jàngal jeunes yi ñu ak pour ñu bañ a topp mag ñi nga xam ne depuis Senghor ñi ngi fi te di laaj ay ndombay tànk retraite la ñu war a def ñoom loolu mooy yoon retraite mooy noppalu boo demee ba booy dox di tax tage tage say tànk di waaj a damm euh, sam xel ñëwatul da ngay bàyyi place bi jeunes yi kooku message la bu may profito wax ko noonu lay gisee donc loolu daal mooy poste yi loolu am na nag lu ci dugaat ndax damay bëgg ngeen fàttali ne CRAES bi wax naa ko nekkoon naa ko waaye fépp laa jaar ndax ministre conseiller nekk naa ko ñeenti weer bariwul mais ministre la ndax décret lañ ma fale conseiller bu président Macky Sall am bureau ci présidence sama bureau mooy bureau bi nga xam ne bi colonel Malick Cissé fa la nekkoon occupé naa ko ñeenti weer. horizon deux mille vingt plateforme la du parti du mouvement dama gisoon yi xew ci APR xuloo xeex jamante sànnente gaz gisatuma sama bopp ci APR APR dama koo nekk de non tur bi mais jàpp naa ne du ma APR ndax bokkuma ci benn structure bokkuma ci comité te yëpp man ma maa coordonné woon Mbàkke bàyyi naa ko Macky daf ma joxoon secrétaire chargé des des des des comités d' entreprise national ci instance bi gën a kawe mu koy présider delloo naa ko donc yoratuma benn ndomba tànk ci APR. doo ma déggit fenn ay directoire yee directoire de campagne bien que man maa investiroon Macky Sall fii ci Diamalaye maa liir investiture yi bi muy wut réew mi booba gars yi ñi ngi yi ko wër léegi ñi ngi woon feneen ak ci leneen mais man maa ko yoroon mais loola déggoo ma ci ba ci woote bi ñu woote barki dem ba gisoo ma ma dem ci ma ci donc mënuma toog seetaan ndax gaal gi dama ci dugg dama bokk ci ñi fal président Macky Sall muy joow gaal gi dugal ma ci ñuy daw ba nekk ci zone de turbulence digg géej gi man damay bëgg rek mu costé à bon port bu ma wàccee nag bu waa APR jëmee nii man nii lay jëm bis bu ma wàccee bu waa APR jëmee nii nii lay jëm ndax gisuma sama bopp ci APR kon APR la maa ngi kartu APR ma ni nag du ma seetaan loolu nag ma def ñëpp ñi frustré comme man ci biir APR gisuñu ci seen bopp ñëw nañu ñu ci bëri fekk si ma loolu tax mu intéressant léegi nag mission bi ñu am fi mu toll mooy falaat Macky Sall ndax réew mi dañ cee bokk te du ñu seetaan kon il faut ñu am candidat juróom ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi tey dallu Macky Sall moom ma leen gënal pour mu yor réew mi loolu kon il faut ma dox ci bu nu paree ba loolu pare nee naa leen woon man danaa taxawal benn coalition bu mag pour ñu laaj maire yi dix-neuf maire yi yëpp ñun daañu ca def ay candidat te man maay nekk tête de bi comme ni Khalifa defe woon taxawu Dakar xaw ma nuñ koy tudde ñun tam euh, taxawu réew mi wala loolu dañ ciy waxtaan moo tax ma fixé woon baaru horizon deux mille vingt ci premier objectif réélire le président Macky Sall au premier tour deuxième objectif la conquête de la mairie de Dakar man nag mairie locale yi du ma ci bu mag bi rek laa bëgg a yor ndax ëpp naa mairie yu ndaw yi